C'est Djibril Mbaye, maire de la commune de Pékesse. Ce que je constate dans le département, vraiment c'est fallacieux. C'est dommage et c'est regrettable. Hier, j'ai eu à dénoncer le policier, le Djedjou de Tian, qui a eu à déposer, à recevoir des dépôts de, de, de la carte internationale un dimanche. Et je, je n'ai entendu l'administration sénégalaise travailler un dimanche, sauf dérogation. Aujourd'hui, je suis dans la commission des réinscriptions de, de Pékesse. le sous-préfet de Ménaka il est fait des certificats de résidence. Et un certificat de résidence, ça, ça, ça, un certificat de résidence est associé à quelque chose. Elle me dit qu'il a reçu des certificats de domicile, que tout est faux. Ça dit du faux, c'est sur du faux. Parce qu'on ne peut pas venir aujourd'hui et être résident APEX aujourd'hui, reconnu résident APEX aujourd'hui. C'est pourquoi ils est là. Elle mais ceux qui sont venus du Toubel ne sont pas des habitants de Pékin, ne pas à Pékin. C'est ce que en connivence avec le sous-préfet de Mérina Dakar, M. Chouria. Merci. Vraiment, ce qui se passe dans le département de Tian, je ne sais Hier, euh, le, le, le policier, Djidjou, qui a Tian, qui déposait les cartes d'identité le dimanche. Je l'ai dénoncé. Aujourd'hui, je suis venu commission. Le sous-préfet de Mérina Dakar, Chouria, bind ay résidence ñoo xam ne dëkkuwuñ fi yarowuñ fi juddoowuñ fi ñëw tey leen fi ñëw am résidence tey nee na woo naa ko ni ko papier bu la indil ñiy dëkkuñu fi c'est faux c'est du faux nanguwu ko parce que il est en connivence avec Pape Dieng et Ndeye Saly Diop ñoo teg pression muy def def du n'importe quoi dama bëgg am réew bokkul nga wut ko légalement wut ko légitimement gagné ko dans toute honnêteté mais mënu ko gàj ay fraude ki sàcc du jàll du jàll li ñuy def nii ak sàcc la ak sàcc la ànd ceeg sous-préfet Souri Dia bu mel ni Dakar naa ko mun a am ay certificat domicile man ko certificat je connais tout le monde ñu fi dëkk xam naa certificat mënoo am résidence tey ñëw fi tey am résidence tey loolu yoon mayu ko fen ak sàcc la ak sàcc la loola doon dénoncé